الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغال بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن doom ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké soxna May Mbacké mu ngi génne àdduna atum 1951 ci diwaanu Touba ci njaboot gu sell di jàng ak jàngale yitteel leen Mbacké ak waaye tamit ci njaboot goo xam ne ay notable lañ Sorang ak Cissé soxna May génnul benn yoon ci li nga xamante ni bii moom la ay waajuram ay maamam ak mboolem cosaanam yëpp nekkoon di njàng ak njàngale yar ak li nga xamante ne bii moo di taarix njàng mu am solo moo xam ni amee na ko ci loxoy nijaayam El Hadj Amadou Bamba Sourang ak ci keppaaru njaxate soxna May Mbacke des si loolee diggante atu 1970 jàpp 90 soxna May nag daal di dugg ci li nga xamante ne bii moo di ay domaines yu bëree bëri ci wàllum commerce culture maraîchage di mbayum dër ak golo alimentaire ak yenn xeeti yëngu-yëngu yoo xam ne lu jëmale koom-koom kanam la ci ati 2000 maanaam 2004 jàpp 2005 Seye daal di taxawal nag li nga xam te ne bii moo di njàng mu daal di samp ci biir këram daara joo xam ne mu ngi ko duppee Cheikh Abdou Lahad Mbacké di fa tàggat ay tout tànk daara joojee mu ñu doon tey franco arabe du léegi école privée franco arabe Cheikh Abdoul Ahad gp GPC 2AM waaye soxna may nekk ku yëngu bu baax a baax ci wàllum social di héberger ay doxandéem di loger ay sans maanaam ñu amul fu ñu dëkk dem ba yegg sax di leen tàggat ñii leen jàngal di joxe liggéey waaye nekk koo xamante ni bii ku bëgg jàng la ak gëstu ba sax ami xam-xam ca biti réew fu mel ni Arabie Saoudite wara ci diwaanu Mauritanie tey jii école privée franco arabe Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nekk école boo xam ne am na autorisation bu état bu Sénégal ci ñaar fukki fan ci weeru octobre 2005 bi nga xamante ni bi nag tax na muy amal njàngale mu mucc ayib moo xam ne am na ci système franco arabe ci diggante 2005 ba 2013 di at moo xam ne soxna May jàpp na ne nag dafa war daal di jublu si li nga xam ne moo di système classique officiel ci diwaanu Touba ndax dëkk la boo xamante ni bii yitte woon nañu ko dëgg la naam ñu ngi jàng li nga xam ne moo di arabe te yàgg na fee nekk waaye njàngum français mu dëppoog yarub diine ji nga xamante ni bii rafet na fii mu daal di def yi jéego yu am solo. loola waral diggante 2012 ak 2021 école privée bi daan nay wàññe nag boppam ci examen yi nga xam ni amal nañ ko ci réew mi li nga xam ne moo di CFEE bi ak 80 virgule 42 pour cent ñu at mi li nga xamante ni bi moo di BFM bi ak 67 virgule 74 pour cent yu at mi ak bac bi nga xam ne am na ci 57 virgule 84 pour cent yu at mi ci ay ndongoom yi nga xamante ni bi bu ñu xayma lijaase yi nga xam ne am nañu ko daanaka suy toftal ñaar junni ndongo yi téeméer boo jël juróom ñaar fukk ak benn yu toftal am nañu ay diplôme maanaam daara ji tàggat nañ fi lu ëpp ñaari junni ak ñeenti téeméeri ndongo te li nga xam ne jox na ko si xëy ëpp na téeméer soxna May Mbàkke nekk koo xam ne jox na yitte wàllum xam-xam njàng ak njàngale waaye tamit wàllum